Ah, jërë ngeen ci teewlu bi ànd bu bi programme 90 euh, Alfaida international euh, tay nak euh, ñuy dalal wa direction de l'emploi et de conseil communal de la jeunesse bu Nous ñu am nak ci suñu studio comme fatouma Ndiaye mom moy responsable suivi évaluation et chef de pôle ciel Pape euh, Ablaye John chef de pôle animation sur le marché du travail ak Cheikh Tidiane Sen mom moy président au conseil euh, communal de la jeunesse euh, de Kaolack ñu ki dalal len nak tay ci Alfayda international ngir ñu waxtane lepp li nga xam si rek jëm na ci walu 72 heures bobu nonu ñuy amal amna naa damay bàyyi rek ñu def suñu tour de table Fatima daal Salam nuyoo salaamaaleykum. salam salaam ñu ngi lay remercier si invitation bi déjà di nuyu képp ku ñuy déglu si rajo bi si Kaolack ak li ko wër man Fatoumata Ndiaye la comme ni nga ko waxee. Mhm. maay responsable suivi évaluation au niveau de la direction de l'emploi. et aussi man maay coordonné pour CIEL mooy programme de centre d' initiative pour l'emploi local bu di installer les missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat. entrepreneuriat. jërëjëf monsieur John Ablaye. merci beaucoup. Mhm, Ablaye jërëjëf. Euh, euh, ñu ngi lay sant aussi di la gërëm ci euh, invitation bi comme ni ko Fatmata waxee di nuyu di euh, sargal borom directeur bi di nuyu population Kaolack yëpp di ci jiital sama homologue président conseil communal de la jeunesse bi di leen di wax ne ñëw nañ Kaolack pour communer ak jeunesse bi ci mbiru entrepreneuriat na ci kanamee dinañ gën yaatal incha allah Euh, merci mais d' abord maa ngi nuyu ñu ma bokkal table bi muy waa direction de l' emploi euh, di nuyu directeur rajo bi ak employé yu fi nekk yëpp euh, di nuyu aussi waa pays bu sell bi ñu fekk si mi Medina Baye di nuyu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Al di nuyu imam bi di nuyu doomu Baye ak sëtu Baye ak muqaddamu Baye yi nga xam ne ñoo nekk si pays bi yëpp Euh, di la nuyu yow it yow mu ñu dalal. ok jërë ngeen jëf kon kaddu ci mu ngi bàyyi ko fii ci Medina Baye Kaolack immeuble Cheikh Ibrahima Assane Cissé ñu ngi ci studio Aliou Momar Lo ki nekk ci xarale gi di Wali Maza Seck comme mi ngi noonu tey am nañ nag ay gan parce que waa emploi des jeunes bu Kaolack suñu leen dalalee fii xam naa jeunesse kaolackoise bi yëpp instant bi ñu ngi déglu ndax ku nekk euh, bëgg na cee gis boppam daal bu baax a baax xam naa kon tey Fatoumata suñu la doon wax rek nga defal ñu présentation direction de l'emploi mm-hmm. tey lan nga ñuy ñuy wax ok euh, avant loolu xam naa damay préciser rek suñu directeur Modou Fall moom lañ fi teewal tey jii nii ci rajo bi moom moo fi waroon ñëw mais dafa am yeneen yitte moo tax ñëwul euh, bu ñuy wax ci direction de l'emploi structure bu état la état état du Sénégal donc euh, moo yor lépp luy wàllum xëy xale yeeg mag yi ñëpp mm-hmm. mooy la population en âge de travail donc la direction existe depuis 1976 euh, nek na ci ay euh, ministère yu actuellement ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat euh, donc la direction a une ay mission une mission stratégique et une mission opérationnelle sur le plan stratégique nous gère tout ce qui est en relation avec l'élaboration la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de l'emploi mais aussi euh, la gestion de l'information sur le marché de l'emploi et euh, également euh, tout ce qui est attrait à, la gestion de la migration de, de la main-d'œuvre. sur le plan opérationnel, direction de l'emploi euh, mu ngi gérer lu intermédiation sur le marché de l'emploi mm-hmm. maanaam di rapprocher offre d'emploi et la demande d'emploi euh, mooy li jeunes li nga wax léegi li jeunes yi gën a soxla mm-hmm. wàllum mm-hmm. di rapprocher que ce soit sur le plan emploi salarié mais aussi euh, si côté entrepreneuriat mooy auto emploi donc direction bi am na ay projet ak ay programme bu njëkk bi mu ngi tudd convention nationale état employeur dispositif la bu yàgg la direction ba muy permettre jeunes yi euh, ñuy renforcer seen ay employabilité en collaboration avec les entreprises mooy secteur privé bi donc euh, lu mu concerne mooy les primo demandeurs mooy ñi nga xamante ne dañuy pare juste formation amaguñu benn expérience ci entreprise léegi dañ lay jël euh, mettre en en relation avec benn entreprise ñu jël la nga mën a def foofu stage nga amaale allocation de stage benen programme bi mu programme de haute intensité de main d'œuvre programme pour euh, les organisations communautaires de base les ASC les groupements de femmes entre autres Il lay waxal aussi ay activités de d'amélioration de de, la, de, de cadre de vie mm-hmm. avec assainissement aussi donc euh, pour euh, et en même temps de nous permettre nous def suivi pour permettre ñi nga xamante ne dañoo participer ces activités euh, assainissement yoyu ñu mëna am xey wala ñu les conditions pour ñu mëna am xey mm-hmm. donc ak benen aussi moy programme bu mujj bi bu direction bi yor mooy boobu noonu man mako man mako jité jiite ak sama équipe bu ma nekkal ci direction ba moy mm-hmm. le programme des centres d'initiative pour l'emploi local donc programme Bobo gère tout ce qui a trait à la territorialisation des politiques de création d'emplois, parce que dans cette lune, euh, euh, au niveau de la direction y a ay programme mais programme programmes, up Dakar ou ñuy yem Dakar li wër mm. ñu est-ce que duñu xool nan la choses ou a à ba ou Kaolack wala Tamba wala une région yi nan la service direction de l'emploi voilà décentraliser déconcentrer euh, service yi mm-hmm. donc programme Bobo, loolu lay gère donc tout ce qui a trait à la territorialisation déconcentration donc bon, si dans la direction de l'emploi loolu n'est kon daal mhm. ci déggin ñi nga xam si def nañu peut ba am seen formation mhm. génn te peut-être amaguñu xëy amaguñu fu ñu dugg suñu ñëwee seet waa direction de l'emploi dinañu ci jàpp bu baax ñi nga xam si nag amuñu benn formation ñoom mhm. defaguñu dara te ay jeunes lañ ñoom tamit bëgg nañu am xëy est-ce que ñoom tamit suñu ñëwee dinañu mën a dinañ leen mën a jàppale teg leen ci yoon wala ay charte ay bases yu solides yoo xam ne si ñoom tamit dinañ ci gis seen bopp bu baax waaw kay euh, question bi am na pertinence am na solo trop parce que instant bi ni faire. xolé le inauguré ministre de l'emploi Dame Diop inauguré euh, le centre local pour l'emploi mhm. et la formation physique. ci Kaolack mhm. programme bi d'initiative pour l'emploi local dañ proposé mhm. bu mu dañ ko euh, mais est-ce que duñ jëm xol nan lañ ci d'emploi emploi ak formation mhm. parce que comme ni nga ko waxee am na ñoo déjà amuñu sax formation pour ñu am formation sax problème la mhm. donc mu ne nañ créer le centre local pour l'emploi et la formation té kaolak mo ñëk am centre local pour l'emploi et la formation mhm. d'ailleurs activité bi bi tax ñu ñëw fi 72 heures d'entrepreneuriat. entrepreneuriat bi fofu lay amé ci biir centre pour que jeunes yi gën a xam euh, centre bi ñu xam centre bi centre bi lañ ko euh, donc centre boobu noonu euh, cible yi day day ki nga parce que am bureau bureau euh, le bureau du service national d'orientation le bureau SNAP Il bureau le bureau de la mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat a le bureau euh, de l'ONFP l'office national de la formation professionnelle mm-hmm. am le bureau 3FPT mm-hmm. le fonds de financement pour la formation professionnelle et technique am na bureau PF2E le programme euh, de formation école entreprise donc euh, idée bi que jeune bi bu centre bi moi lu ñu inauguré jeune bi bu dalal moi le bureau du service national d'orientation professionnelle parce que ñoom seen xarañ am euh, ay xarañ xarañ orientation mm-hmm. jeune bi bu dañ koy diagnostic dalal ko voilà ko dalal ko léegi nak génnee ay besoin parce que besoin besoin yi mun parce que jeunes yi cible dafa bari ñi dañuy bay troisième dañuy premier euh, lycée la de ñi donc bëpp jeune bu ñëw di nga am réponse à tes à tes besoins soit en formation soit en en en emploi léegi nak jeune bi bu si si si si bi si bureau bobu nonu dañ day xol féké jeune bi formation la soxla dañ koy orienté si beneen bureau bi mooy bureau ONFP boobu mooy maye formation yu gàtt ay formation qualifiante de courte durée dañ lay renforcer nga am sa diplôme euh, wala su fekkee formation bu yàgg la soxla dañ lay booleeg 3FPT bureau 3FPT moom moo lay dimbali financé la mooy financé lépp luy wàllum formation à hauteur de 90 pour cent donc jeune bi mun na am opportunité boobu mmh. beneen opportunité bi mooy le bureau de de bi ma la wax sànq PF2E boobu moy jappalé jeune yi pour ñu mëna a euh, bolé liggéey euh, nek en entreprise jang en même temps donc sen temps bu gëna a bëri mm-hmm. si entreprise lañ koy défé lañ koy nekkee donc jang bi pratique bi mooy ëpp mm-hmm. donc benen bureau bi moy bureau euh, mission locale bu jeune bi amna diplôme ba paré jang na et tout soxlawul benen jàng mm-hmm. dañ koy mettre en rapport ak ñu orienté ko au niveau du bureau de de la mission locale bureau euh, bu fa ñëwé dina am euh, peut-être renforcement de capacité sur les soft skills moy compétences transversales. parce que mun nga jàng euh, de formation do am ay yenn compétence ñuy soxla ci entreprise manam noy rédiger lettre de motivation CV noy défé say recherche d'emploi mun nga am doo ko xam entretien d'embauche noy comporté wo mun na am doo ko xam si donc doo ko sa formation euh, bureau bobu nak da lay jàppale si pour ñi bëgg def emploi salarié. pour ñi bëgg entreprendre tamit bureau bobu da lay jàppale si pour accompagner la nga élaborer sa business plan wala ñu accompagner la xool structure de financement yu fa nekk ñu bolé la ak ñoom donc loolu dal ci tënk loolu mooy ki centre local pour l'emploi et la formation. ok am na solo kon xam naa ni euh, jeunesse Kaolackaise bi nga xam si jamono yii ñu ngi déglu de FM 90 yaakaar naa ni loolu moom euh, dina neex nekk xibaar boo xam ne si lu neex la. Mm-hmm. parce que ñi nga xam si peut-être euh, ils sont diplômés suñu ñëwee te xamuñu woon fan la ñuy teg seen tànk nañ leen dimbali wan leen yoon ba teg leen fi nga xam ne si dina leen jëmale kanam parce que loolu lañ ci nam ñi nga xam si tamit amuñu benn emploi defuñu amuñu benn formation mosuñu jàng sax wala seen jàng soriwul ñoom tamit. Euh, bu ñu ñëwee foofu noonu ci bureau bi dina leen teg ci ay chartes yu xam naa seen moom loolu moom comme moom moo nekk Kaolackois bi te moom mooy gën a xam mm-hmm. jeunesse Kaolackoise bi a soxla ak euh, xale dañoo jàng ba pare te euh, wax peut-être amuñu xëy est-ce am nañ seen ay formation yu dëgër mais fu ñu taxaw ba liggéey loolu la ñu amul ak ñi nga xam si tamit mosuñu def formation te tamit bëgg nañu peut-être fan la ñuy teg seen tànk xam naa yow yaay gën a xam Kaolack ci lan lañ gën a soxla loolu noonu ndax yow yaay Kaolackois bi du daj mm-hmm. <laughs> <laughs> loolu am na solo mama chocolat permettre ma d'abord ma gërëm wa direction de l'emploi au euh, ministère euh, de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat si choix bu choisir kaolak pour euh, vraiment installer fi premier centre bi yaakaar naa ñun dañ apprécier en tant que des jeunes parce que Sénégal 14 régions la région ñu sommes Kaolack lolu léegi tax ah peut-être dañoo dañoo am yaakaar si ñun rek ne suñ fi defee phase test bi dinañ euh, dina réussir bañ mën koo tasaare si yeneen euh, région yi. Mm, mm, mm. te aussi gëm naa loolu la comme noo ko waxee ah. parce que ku ne jeunesse ne le levier du développement. Mm-hmm. Sénégal tey mi état bu Sénégal yaakaarul dara am lu dul si ay euh, jeunesse am lu ay ndawam. aussi tey Sénégal émergent ak yeneen li ngay gis yëpp mi politique état jëmale ko si wàllu jeunesse tey. Euh, dafa doon loo xam ne direction de l'emploi da si am euh, wàllu bu rëy mm-hmm. parce que jeune boo wax danaa la man liggéey laa bëgg liggéey aussi dafa am ay fànn yoo mën a jaar pour mën ko am mm-hmm. newul da ngay xëy rek am liggéey mm-hmm. tey dafa laaj encadrement dafa laaj formation pour nga mën a am liggéey boo xam ne dina la jëriñ tey la plupart da ngay dégg ñuy joxe ay pourcentage yu rëy ne mooy taux de chômage euh, jeunesse Sénégal mais lu si bëri du doon loolu parce que euh, suñ ne kan mooy chômeur ak ko doonul chômeur loolu aussi def différence bi baax na jeune bu nga xam amul benn qualification amul benn liggéey kooku est-ce que dañ koy considérer comme chômeur hmm. jeune bu nga pas ne peut-être jàng jàng nga ba pare mosoo appliqué amoo benn vraiment qualification bu nga xam ne moo lay permettre nga dem vers l'emploi est-ce que kooku dañ koy considérer comme chômeur kon aussi euh, direction bi euh, centre bu def à Kaolack fas ko aussi xam naa euh, def ko si yeneen région yi dina gën a rapprocher jeunesse bi ak euh, ministère de l'emploi si wàllu orientation parce que jeune lu mu gën a soxla mooy information tey ñun si ñu bëri si ñun amul les informations qu'il faut pour mën a taxaw ne lii lañ bëgg a def wala lii ak orientation parce que comme ni mu ko waxee lim na fi euh, projet ak programme yu bëri tey jeunes yi amul information bi ñu si bëri sax xamul lan mooy njëriñu projet yooyu ak programme yooyu kon centre bi su suñ ko defee ak Kaolack ñun dinañu gën a rapprocher ak suñ besoin bu nga xamee mooy affaire emploi ak affaire euh, formation parce que aussi formation dafa am solo si si si jeune bi mënoo jug xëy am liggéey te amoo formation boo xam ne moo lay permettre tey nga mën a am liggéey boo xam ne di dina dina la jëriñ dara am liggéey boo xam ne peut-être aussi di nga si mën a dem waa euh, nu mu waree euh, kon aussi loolu day am solo ñun dañ ciy en tant que représentant des jeunes euh, ñoom aussi di le remercier parce que euh, centre bi buñ ko tabaxee wane nañ jeunes yi ñoo si ñoo ko moom bu première activité buñ siy def mi 72 heures yi la jeunesse de Kaolack mi conseil communal de la jeunesse mi départemental mi régional ñëpp yëg nañ ni y a une activité qui va regrouper des jeunes euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat à Kaolack ok monsieur Sen, merci euh, Fatoumata présentation au centre local bi ak formation yi employé yi naka lay demé Ok, je pense que lolo, waxon naa si euh, mais dañ ci wat rek mu gëna lèr moy centre local bi xam nga dafa am ay comme li la ko waxé rek bureau yi yu fa nek am nañ fa service national orientation. Mhm. buñ suñu bu fa représenté am nañ fa bureau amna euh, bureau 3FPT amna bureau ONFP amna bureau PF2E. amna mhm. bureau mission locale. bu nek nak da nga am ay mission yu leer té centre bi euh lu ci gëna neex moy que cible yi dafa bëri moy li la ko waxé rek euh képp jeune yépp kat toutes les catégories de cible mun nañ trouver ben réponse ci centre bi. Mhm. euh ñu mësul am formation mun nañ fa am ki ñu ñi nga xamante xey lañuy wër buñ démé dinañ ci gis seen bop ñi nga xamante euh jang nañ ba benn niveau bi ñu arrêté bëgg a ñëwaat ut liggéey bu ñu ñëwee dinañ leen fa dinañ dinañ dinañ fa bokk. Mhm. donc centre bi daal euh, kii ba guichet unique la daal. dañ koy woowee mhm. ndaw yëpp dinañ ko kii représentation euh, des structures et services du ministère de l'emploi de la formation professionnelle moom lañ def noonu indi ko Kaolack. ok kon léegi ñu jàll xam naa ci 72 heures bi annonce yi nu muy demee tout. waaw. Euh, euh, ñu lay remercier waat rek. Mhm. donc euh, dañuy commencer rek ci 112 euh, heures à partir di lundi muy suba. incha 9 h bu jotee bëgg nañ dalal autorités locales yi comme conseil de la jeunesse préfet bi ak suñu directeur également. Mhm. ñu dalal leen fii Kaolack ak ndaw yi yëpp. ci loolu nag après dinañ ci def dinañ former ndaw yi parce que tey dañuy dañuy wax ne en général nit ñi dañuy bëgg def mais duñ xam lu ñuy def ba ba de ba ba ba atteindre seen objectif mhm. maanaam li ñuy soxla ci information pour jëm ci côté entrepreneuriat wala ci ut xëy day xaw a jafe si ñoom moo tax ñu ne nañ fi ñëw buñ fi ñëwee ñu jéem a waxtaan ak ndaw ñi ci entrepreneuriat parce que nag euh, suñu ministre Dame Diop dafa jox suñu directeur instruction nee ko dama bëgg ngeen fexe ba le la majeure partie wu jeunes yi ngeen xiirtal leen ci entrepreneuriat maanaam ñu mënal seen bopp amal seen bopp liggéey ndax seetlu bi mooy marché de l'emploi bi tey état mënut jël ñëpp jox leen xëy ñu maanaam ñuy xëy ci bureau kon bu ko defee ñi nga xamante nii aussi seen xel màcc na ci ñu mën liggéeyal seen bopp ñu jàppale leen ba nga xam ne ñoom dinañ mën euh, am seen xëyu bopp wala boog bu ñu xë bu ñu amul seen xëyu bopp aussi ñu am ci lu ñuy yëngu loo xam ne dina dina leen amal njariñ ci leen euh, ci suba incha allah waaw euh, dañuy def benn sensibilisation ci entrepreneuriat ñu koy woowee esprit entrepreneurial nga xam ne dinañ yee ndaw ñi nee leen fii ngeen di war a jaar nii ngeen war a defee nii ngeen war a taxawee pour mën a def entrepreneuriat buñ ci paree aussi dinañ leen wan aussi euh, parce que nit ki looy mën ci def rek te amoo te formé loo day xaw a compliqué ci yow ndax bu boobaa doo mën a bénéficier wu leen ci état. manam ay financement yooyu pour nga am ko tay faw nga formel pour nga meun bénéficier ci ay service yu bari day soxla nga am kayit hmm. ñu won leen yan yoon la ñuy jaar nu ñuy def ba meun am kayit yoy lolu suñuy naataangoo yi dinañ ci ñëwaat buñ ci joggé aussi dinañ leen euh, former ci éducation financière manam ndaw mi bu liggéeyee wala limuy muy amakas tuut nan la koy samé ba nga xamné du tassaro hmm. ndax ñu bari ñu ngi xey ñu ngi wacc ñu ngi am dara mais niñ koy gérer moy am jafe-jafe ba tax sen entreprise wala sen kom kom ba ñuy am du mëna meñ ni mu waré buñ joggé ci lolu aussi ñu waxtaan ak ñom également ci euh, économie sociale et solidaire ndax dañ sétu né jamono bi ku ñu bëri dañuy am manam dañuy mën li kii mën li kii mën li kii mën li ñu xol nan lañuy def ba ci société bobu ku nek nga mëna indi dara ngeen bok mën a jëmbat dara ba nga xam ne ku nekk dina ci gis boppam muy économie sociale et solidaire nga xam ne li ci ëpp suñu yaay yi ñoo koy def mm-hmm. eh, te loolu mu nekk loo xam ne aussi jeunesse bi war nañ ci mën a roy ba nga xam ne dina leen jàppale ci euh, euh, ci seen euh, ci seen xëy maintenant mercredi bi aussi comme jàpp nañ ne aussi ci population bi ci jeunesse bi de manière générale am na ñoo xam ne dañuy bëgg entreprendre mais am na ñoo xam ne dañu am des prédispositions à Euh, liggéey ci bureau maanaam li ñuy naan emploi salarié ñooñu aussi dinañ leen jàppale wan leen yoon que ça soit muy élève bi ndax dañuy jël en charge euh, catégorie catégorie yëpp élève bi nga xamante ni mi ngi jàng te yoonam leeragul ci xelam kooku il dañ koy jàppale won ko nan la war a defee projet professionnel am maanaam nan la war a waajale boppam bu suba bu bëggee dem ci marché de l'emploi bi rek day yomb ci moom bu ko defee foofu aussi dinañ leen won également nuñ euh, parce que ut xëy dafa metti de du loo xamante ni da ngay toog rek am ka te en général jeunes jeunes yu bëri duñ ko xam ndax da ngay ñëw même fa nga xamante ni waroo ut xëy maanaam fi nga war a ut xëy doo fa dem mais da ngay dem feneen dinañ leen won ay technique yoo xam ne nii ngay def ba nga mën xam fan nga war a ut xëy boo fay dem nan nga war a demee noo fa war a noo fa war a taxawee ba nga xam ne loolu dina yomb ci yow dinañ ñëwaat aussi ci technique de recherche yi de manière générale maanaam nooy binde CV nooy binde lettre de motivation nooy defee entretien d'embauche ndax lu jafe la ñu bëri xëj na euh, suñu genre yi dañuy xëy rek ne ay coach lañ nekk ci dëkk bi di former boy yi waaw di naan dañuy formation te te te maanaam lañ leen di jàngal mm-hmm. am amaanaa mën na baax mais mën na ñàkk adapté wu ak mm-hmm. réalité bi ak li leen di xaar ci marché bi mm-hmm. ce qui fait que ci suñu service yi à chaque fois dañuy am CV yu bari yoo ne da lay leer ne boo ko entreprise du xam du xam compétence ndaw ku ndaw ki donc ñooñu day soxla ñu tàggat leen ba nga xam ne compétence réelle mu mën mais également mu yombal ki nga ndaw ci bu yomb mais également dina mini atelier yu ñuy def porteurs de projet yoo xam ne dinañ leen dimbali saytu seen projet bu xool ndax euh, bancable na ak suñu experts yi ñu ñu jàppale leen tënk projet yooyu ba nga xam ne bu ñu ko jébalee tey institution financière ñu mën a am financement incha allah. Mm-hmm. kon loolu mooy mën a waaxu xanaa xam yoon bi moom moo ko gën. parce que mm-hmm. ngay def dara. te xamoo fan nga war a teg sa tànk tamit mën na am ni nga ko bëggee du mën a sottee noonu. ok mais man 72 heures dégg naa ngeen lim ngeen ba jeexal nii kon. am na lu ñu waxtaanoo sànq de yooyu dégguma ci te yooyu xam nga ne tamit day tax sama mbokk yi sant Cissé ak looyu dañuy gën a sawar ci bi bokk ci yooyu noonu bu fee beeg nu muy de Fatoumata <laughs> waaw loolu loolu moom loolu mën waxoo leen ci dara de non loolu man ak yow ñoo koy gérer waaw ñoo koy gérer en tout cas tout cas bëgg naa aussi euh, ngeen euh, préciser seen euh, siège bi fu mu nekk naka la CLEF waaw voilà fan la nekkee parce que am na ñu bëri ñoo xam ne mën naa am duñu xam fan la féetee ndaw yi dinañ bëgg hmm. ñëw assister mais duñu xam exactement adresse bi ak yooyu noonu. Hmm. <laughs> waa Kelef bi mu ngi nekk euh, quartier Léona euh, en face euh, de la préfecture préfecture bu Kaolack ku xam préfecture xam ne moom mairie ñoo taqaloo Kelef bi ak préfecture bi ñoo jàkkaarloo route nationale numéro 1 bi moo dox seen diggante. Eh, soo eh, taxawee buntu préfecture rek mooy bâtiment bu ngay jàkkaarloo action sociale foofu la nekk ak yeneen service yu bari service yu état yu bëri ñëw regroupé foofu eh, kon yaakaar naa yomb naa xam te aussi ci dëgg centre ville bi la nekk ci beneen côté bi mu ngi taqaloog arc-en-ciel arc-en-ciel taqalool ci beneen côté bi jàkkaarloog côté région médicale kon yaakaar ci dëgg centre ville bi la nekk yomb xam ba dee

et eh, de conseil communi euh, communal de la jeunesse de Kaolack eh, ndaw yi nga xam si jamono yi ñi ngi déglu te am tamit ay questions yoo xam si ne bëgg nañ leen ko laaj am loo xam si peut-être euh, jaaxal na leen demaguñu ci siège bi eh, ndax euh, xamaguñu naka lay tëddee mën nañu woote ñoom tamit 33 942 13 47 wala ñu woote 88 628 97 97 wala ñu woote 88 628 18 76 ci Alfayda international Euh, bëgg naa ñëwaat ci soixante douze heures yi. Mhm. parce que dama gis ne soixante douze heures yu am solo la soo xoolee ci préparation bi ba si vraiment fii ñu si toll ñu fas yéene ko commencé suba euh, des fois dañ koy gis des fois da ngay gis ñu wootee pour des formation walla ay forum ak yooyu dajale vraiment jeunes yu bëri. Mhm. au au contraire soo demee doo fa gis qualité. Mhm. mais soo gisee soixante douze heures yi. Euh, nombre bi euh, nombre bu limité mhm. parce que 60 personnes sont ñu wax. da xam nga 60 personnes ku leen def ci salle loo bëgg def ci par rapport ak nuñ faral di ko c'est vraiment gis nañ innovation euh, bu direction de l'emploi indi. vraiment pour vraiment jàppale ndaw ñi ci wàllu emploi ci wàllu formation parce que yu ñuy faral di participer yëpp da ngay dem salle bi fees dell. Mm. Ah, ay jeunes 1000 jeunes dajelo nga te la plupart ay benn journée lay doon mais ñoom su ñëwee jël trois jours euh, déplacé vraiment soo xoolee direction bi yëpp à Kaolack. Mhm. ñëpp ñëw pour vraiment ñu def euh, benn collaboration ak jeunes yi vraiment jàngal leen lu bëri parce que lu ñuy soxla pour vraiment mën a nekk dans le monde de l'emploi yëpp ñoom tey soo xoolee mu ngi ci euh, chronogramme 72 heures yi. Mhm. jeunes yu bëri problème boobu la gens parce que école kenn du la jàngal nooy bindee CV. Mhm. école kenn du la jàngal nooy bindee lettre de motivation. Mhm. kon suñ ñëwee fas yeneen partagé ak ñun pendant trois jours loolu vraiment damay gis ne participation jeunes yi da si am solo. Mhm. surtout ñi nga xam ne tey euh, mën nañ leen tuddee ay entrepreneur lañ am nañ projet wala am nañ idée de projet wala am na luñ tegagum sax pour vraiment loolu gën a mën a euh, jëm sa kanam euh, beneen bi aussi mooy da ngay gis. jeune yu bari problème bu nga am mën nañ taxawal dara di louer ay chaise di louer ay matelas di def commerce mais vraiment euh, éducation financière bu ñu war a am ah amun ko duñ xam nan la ñuy gérer lu ndaw loolu ñuy am pour mu mën leen jural leneen duñ xam tey suñ bëggee financement euh, yan partenaire lañ war a rapproché yan banque ñoo collaborer ak état pour mën a euh, vraiment jàppale ndaw ñi kon yaakaar naa 72 heures yi day am solo te dafa ñëw euh, à son heure jeunes yi soxla nañ ko soxla nañ xam fan lañ war a mën a dem pour am formation pour am emploi mais aussi soxla nañ yenn rudiment de base yi nga xam ne tey jeune ku ko euh, ku ko amul mënoo dem euh, benn ci benn projet ci benn entreprise ne da ngay déposer kon vraiment ñun di leen wax ne ñu sommes de tout cœur ak waa direction de l'emploi en mhm. tant que des jeunes parce que Euh, lii la ñuy xaar ci état. Mhm. proposé ay projet ay programme yoo xam ne c'est pertinent pour la jeunesse nga xam ne tey jeunes yi dinañ si mën a jëlee dara comme lu ko président waxee tey l'emploi n'est plus garanti par l'état mënoo jàng ba pare wala def sa formation ba pare taxaw na état jox ma liggéey. Mhm. te marché de l'emploi bi saturé na kon. benn buntu rek lañ am mooy auto emploi. Mhm. te yaakaar naa loolu soo demee ci yeneen réew yi pays développé yi ñoom loolu lañ gën a développé nit ñi li xëyal seen bopp te yaakaar naa dara dàq ko doon sa patron bopp mhm. ku sañoon moom ngay moom ngay moom ngay doon mhm. kon aussi ñoom suñ ñëwee pour vraiment def la promotion de l' entrepreneuriat de l' auto emploi day am solo si jeunes yi trop parce que euh, ñu bëri am na jeunes yoo xam ne tey ñoom seen euh, préférence mooy ñu liggéeyal seen bopp. Mm-hmm. te aussi dina dimbale état si benn fànn parce que man su ma amee sama entreprise lu mu dee dee dinaa jël ñaari nit ñetti nit ñu mm-hmm. liggéey dina créer ay emploi kon yaakaar naa ñu vulgariser information bi ñu ñëw participer si 72 euh, heures yooyu mën nañu jëriñ ok Fatima comme yow yaa ci nekk euh, jigéen dëgg la. Mhm. yow lan ngay wax tey ji jeunesse euh, féminine bi lan nga booster. à ce que ñoom tamit ñu ñëw assister 72 heures yi. Mhm. pour ñoom tamit gis ci seen bopp am ci njëriñ. Mhm. waaw balaa boobu damay ñëwaat juste wax. parce que solo. mooy le fait que déjà ñu am benn démarche qualité parce que mënoon nañ ñëw ni 200 jeunes ñëw. ñu ñëw def ben jour deux jours defal len ay ki présentation dem suñu yoon. Mhm. mais dama koy rassurer ne que ñun démarche qualité lañuy démé té déjà suñu direction bi dañoo am ben programme bu ñu wax programme emploi. Mhm. daf am ay éducateurs yu fa nek éducateurs yi dañ ko wara a renseigner. Mhm. loolu tax lepp lu ñuy liggéey luñ ci wut moy résultat na am résultat na am impact loolu tax ñu am benn nombre boo xamante ne dañ ko sélectionné ñu bëgg a ñooñu ñu suivre leen parce que après activité bi dañu leen bëgg a suivre du ñëw rek def 72 heures. lan say bagage dem. Mhm. du loolu dañuy leen di toppaat. incha allah loolu mooy kii bi parce que CLEF bi loolu mooy liggéeyam. Mhm. dañ leen di toppaat mu am suivi accompagner leen. am na ñoo xam dañuy soxla un suivi rapproché dañuy am dañuy soxla un un accompagnement approfondi mhm. donc loolu yëpp xalaat nañ ko te dinañ si liggéey incha allah et aussi me revenir sur le euh, def 72 heures entrepreneuriat. Mhm. parce que jamono ji da ngay chômage bi dafa bari yi mais euh, loolu amna lu ko waral facteurs explicatifs euh, manque de maîtrise de l'information. qui mhm. wax information lañ que ay xëy. Mhm. parce que boo leen nee nii ngay def fii ngay jaar bu am xëy rek ñoom dem na demal nañ seen bopp. Mhm. donc loolu benn aspect la si wàllum xëy bi man ñàkk wàllum xëy bi ñuy wax. beneen aspect bi mooy le manque d' adoption de la culture entrepreneuriale par les jeunes parce que jeunes yëpp lu ñu yaakaar ni que ñëw toog si bureau loolu mooy patron. Mhm. nga ñëw daal am sa bureau loolu mooy tax nga am xaalis. voilà loolu mooy tax nga am xaalis. da ngay gis sa boo ñëwee ñun

Nous dañoo war euh, jeunes yi euh, sensibiliser pour que ñu adopter la culture entrepreneuriale mm-hmm. euh, loolu nag deux approches la approche curative ak approche préventive approche préventive bi il faut que les ñi nga xam ne dañoo nekk sax di jàng mooy mm-hmm. primaire au niveau primaire même ñu leen di inculquer loolu ñuy mën a nekk ay entrepreneur di mën a ay chef d'entreprise mm-hmm loolu lañ la war a def loolu mooy approche créative approche qui, euh, euh, euh, mooy approche préventive approche euh, curative bi mooy ñun suñu liggéey mooy ñi nga xamante ne moom génn nañ ba pare kii nañ am nañ seen ay diplôme ñun ñu jëm leen récupérer di leen sensibiliser di leen accompagner di mm. leen informer pour que ñuy mën nous ay entrepreneur mais aussi ñuy créer en entreprise di et ay donc euh, juste pour expliquer rek li waral 72 heures yi un mhm. élément bi moi, euh, CLEF centre local pour l'emploi et formation ministre d'un job ministre de l'emploi de la formation de l'artisanat a euh, def na inauguration en octobre passé donc nous, ñun en tant que responsable euh, de tout ce qui a trait à la territorialisation des politiques publiques wala de politique de création d'emplois au niveau de la direction nous mm-hmm. nañ que suñu devoir nous ñu fexe ba CLEF boobu mu fonctionner mm-hmm. donc nous ñëw rek inaugurer dem non mais il faut fonctionner Lolo tax ñu initier activité bobu té activité bobu bu inshallah, bëgg nañ personnel bi ñëw tok liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. pour ndaw ñi am ci gis si seen seen bob, bopp incha mm-hmm. allah. donc jigéen ñi moom <laughs> macha allah léegi moom boo xoolee jigéen moom dañ naan que euh, euh, dafa war a nekk koo xamante ne pion pionnier lay doon ci développement mm-hmm. léegi boo xoolee développement boo koy wax sax dañ naan mënuñu dem sans jigéen ñi. Mm-hmm. donc jigéen ñi dañoo war a participer pleinement au développement du Sénégal en général. donc nag jigéen yi dama leen di ñaax góor baax na jigéen baax na fu mu toll ni sax situation bi dafa renversé boo xoolee si école voilà boo xoolee si école yi sax jigéen yi ñoo jël pee ñoo dàq jaag waaw kay ah. liggéey bi sax ah, booy xool yenn saa yi jigéen ñee ëpp jom góor ñi de <laughs> <laughs> waaw kay voilà donc mu ngi noonu donc da leen di dañuy ñaax jigéen ñi rek nous euh, ñu participer parce que tay jii dit sax maa ngi yàgg maa ngi koy wax mm-hmm. président. Mm-hmm. bu ñu bu ñu euh, parce que moom moo ngi au passage parce que depuis ñu commencé nag euh, activité bi organisation bi. Mm-hmm. toogul mu ngi dem informer. Euh, di di ma indil di ma proposé ñi nga mm-hmm. xamante ne affaire bi intéressé na leen donc bu ma proposé liste bi mu ngi nii toog dama ko ne lii de kontaan naa si parce que mm-hmm. maa ngi gis ay jigéen yu bëri ah, mu ngi nii ma woo ko téléphone <laughs> ah. ma ne ko lii moom kontaan naa si parce que jigéen voilà jigéen yi pour ñu participer vraiment de see am solo Sénégal dëkk mënul développer sans jigéen parce que boo xoolee jigéen yi ëpp góor yi mm-hmm. population nationale jigéen yi ëpp nañ ay 50 plus de cinquante pour cent donc jigéen bu amee xëy góor am xëy ñoom ñaar ñëpp. ñu euh, boole indi ci kër gi ku nekk voilà indi ci kër gi voilà. <laughs> lu chaque jour dañuy laaj ñëgu xorom ak ok kon xam naa ni comme euh, wax nañu trois points yi nga xam si ñoom moo nekkoon essentiel bi ci 72 heures yi. Mhm. xam naa kon dañuy tëj da ngeen wax seen mot de la fin. waaw euh, balaa. balaa may tàggatoo rek nga may ma mhm. tuuti rek ma ñëw ci benn point bu essentiel ban la mhm. ba nga xam ne Fatmata foofu la doon waxee mooy côté suivi bi ndax euh, comme ni mu ko waxee dañ jeune bi jeunes yi dañu jàpp en général nit ñi bu ñu waxee rek ñu ne ah dañuy suub mhm. toog seen kër yi pour ñu mën leen rassurer que ni li ñuy def amul lenn loo xamante ni am na euh, maanaam li ñuy def njëriñ kese moo ci nekk mhm. ndax booy xool bëgg information bi jàll ndax nit ñi nit ki bu amee information rek ni mu ko waxee daanaka kiyam leer na mhm. dina xam fan la jëm loolu moo tax tey ci direction bi am nañu ay pool yu bari yoo xam ne dañuy permettre ñun ñu am autonomie ci déplacer wu booy xool euh, fan yële passé dem nañu an beler, am jeune yu ñu fa doon waxtaanal comme li ñu war a def nii Kaolack mm-hmm. ba démb démb am na jeune boo xam ne dafa taxaw ne ah man kat euh, la ngeen waxtaan bañ ngeen waxtaan ak ñun mm-hmm. ba tey moo tax dama jëmmal sama entreprise ba démb démb la doon lancé euh, entreprise am ah, xëy na lam lam doon njort tey fa mu yegg tey weesu na weesu na ko foofu mm-hmm. ba suñu directeur Modou Fall moo fa dem démb première calebasse bi nga xamante ni bokk na ci euh, ci projet boobu premier calebasse bi moo ko jënd jox ko ko et ba euh, loolu li ci gën neex mooy dans l' avenir dañ dañ ko bëgg enrôler ci li ñuy wax convention étant employeur pour rek assurer jeune yi que ni ay opportunité am na fi mais juste il faudra ñu ñëw vers l' information beneen aspect bi may jeexale mooy bëgg information boobu jàll moo tax euh, au niveau de la direction am nañu benn communication aussi boo xam ne support la nga xam ne lépp lu ñuy def rek dañ koy mën tasaare à travers les réseaux sociaux à travers leneen et et euh, suñu directeur bu bees bi aussi indi beneen initiative am boo xamante ni dañuy permettre tey jeune bi nekk même ñun bu ñu demee mu mën à travers benn plateforme boo xamante ni dañ koy mettre en ligne incessamment mm-hmm plateforme boobu mu mën di suivre suñuy formation à distance ah waaw loolu innovation de taille la loo ni dans daanaka service public daan le ko mhm. mais dañu da ngay mën bi plateforme bi ñu suivre la former à distance et puis aussi am nañu ay collecteurs yoo xam ñu ngi ci par exemple euh, jeune bi nga xam mu ngi collecteur boobu bu déplacé woo ñëw ci zone boobu dina mën inscrire u nekk suñu base de données mm-hmm. nga xam ne offre d'emploi bu amee kooku ñu mën ko sélectionner mm-hmm. également mm-hmm. loolu yëpp nekk ay opportunité yoo xam ne bëgg nañ ci partager ak ndaw ñi wax ak ñoom ñu xam ne lii lañuy def kon euh, rek euh, dañ ci dañ leen di oo ñu ñëw ñu partager ci jour ci ñetti journée yi ñu fiy def en attendant aussi ñi nga xam ne ñoo ñoom ñooy gérer club bi ñoom ñu ñu toog euh, di la gërëm rek di la sant di sant waa Kaolack yëpp. jërë jëf. ok merci beaucoup Fatoumata. ñu def tour de table rek daal di tàggoo. Mhm. Mhm. Ah, d' donc euh, merci beaucoup vraiment si invitation bi encore une fois de plus. je pense que sama naataango bi Pape Abdoulaye John wax na lu am solo mooy par rapport ak suñu dernier kii bi bu fu mu tëjee mooy dispositif euh, bu directeur bi Modou Fall mettre en place actuellement ni parce que xam nañ ne euh, ñu bari du am accès ci information mais lii nii euh, e-collecte la ko tuddee euh, day permettre jeunes yi ñu mën leen inscrire à distance dañ ciy dugal ay capsule vidéo gars yi mën leen former mën leen a accompagner. Mhm. donc di la remercier duma ma mën a jeexal sans remercier suñu partenaire boo xamante ne moo ñu jàppale ci activité bi mooy CECI. Mhm. mooy suñu seul partenaire d'ailleurs moo ñu jàppale vraiment ci activité bi. Euh, kii la structure canadien la donc ñu ngi koy remercier ñu ngi leen di remercier ñoom. léegi soxla ngeen yeneen ay partenaires wala. kan ñun. waaw comme kat. Ah. ngeen woote waa ngeen waxaale gars yi pour ñu ñëw tamit. waaw waaw ñu ngi si ñu ngi si. ñu ngi si ñu ngi développé partenariat bi ñu ngi si. <laughs> wala si si def na lépp. si si ah waaw ah def nañu lu bëri de mais conseil communal de jeunesse tamit macha allah mhm. chapeau. Mhm. vraiment euh, ñu ngi si tax euh, liggéey nañ si bu baax a baax a baax. ak perce euh, euh, conseil régional de jeunesse pas également. Euh, entreprise aussi nous oo avec ak convention état. Wow wow aussi tamit entreprise bi entreprise yi tamit war nañu qui war nañ ci collaborer xamna après 72 heures yi dinañ amaat benen mission buñ fi def. Mm-hmm. mission de prospection pour xol entreprise yu nekk fi pour nous avec collaborer avec dans le cadre de la convention nationale état employeur. donc euh, merci beaucoup loolu la ñu amoon <laughs> fi wax ñu ngi leen di jaajëfal. daje <laughs> ok sen. merci d'abord je man maa euh, encore une fois la direction de l'emploi mhm. parce que sous le nez aussi avons que def sen activité sans impliquer euh, les les organisations de jeunesse. mais xam nañ ni vraiment mbir mi ndaw ñee ko moom euh, impliqué nañ ñu bu baax a baax euh, di leen di wax euh, jeunesse bi nañ ñëw profité rek parce que aussi dañ ñee tuddee ay kaaskat dañu taxaw si ruq yi di kaas rek amun lii amun lii mais aussi su ñu mayee ay opportunité pour vraiment ñu mën a former wu mën a ñu encadrer ñu accompagner ñu loolu dañoo war a ñëw exploiter ko di gërëm ñëpp di gërëm directeur ak employé yi nekk si rajo bi yëpp ak waa. Medina Baye yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen wax lépp lu dëng si kàddu gi suñ mandat yi la lépp lu lu si jub yéen ñu dañ dégg seen dégg na rafet wasalaamaaleykum. ok mu ngi noonu kon nag euh, ñu dalaloon tey ci 90 Alfayda International waa direction de l' emploi et de conseil communal de la jeunesse de Kaolack ñu amal seen 72 heures yooyu nga xam si dinañ ko door suba incha allah ñu invité franchement toute la jeunesse euh, kaolackoise ak suba ñu daal di ñëw teew foofu noonu. ndax dinañ fa am ay formation yu am solo yoo xam ne soxal na képp koo xam si ndaw nga nekk ci gox wala gox-goxaan nga xam si eh, ñoo wër eh, Kaolack eh, comme ne Fatoumata Ndiaye responsable suivi évaluation et chef de pôle ciel ak Papa Ablaye John chef de pôle animateur sur le marché du travail ak Cheikh Tidiane Sène moom mooy président au conseil communal de la jeunesse kaolackoise kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu jox leen dig dajé benen bés ci yeneen invité jërë ngeen jëf ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat à travers la direction de l'emploi en partenariat avec le Centre d'études de coopération internationale CECI et le Conseil communal de la jeunesse de Kaulak. organise du lundi 17 au mercredi 19 février 2020 des 72 heures entrepreneuriat dans le centre local pour l'emploi et la formation CLEF de Kaulak. ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat 12 heures Nous leen ñu ci employabilité ak promotion de l'entrepreneuriat productif et durable ci ndaw yi nekkee ci région bu Kaolack fas formé ou ben fukki ndaw ci porteur wala porteuse de projet ak juróom ben fukki ndaw ci walu technique de recherche d'emploi. 72 heures lundi 17 février création et formation d'entreprise, éducation financière économie sociale et solidaire leadership et développement personnel mardi 18 février, présentation et échange sur 10 projets de jeunes.